ngi leen di euh, gërëm bu baax ci seen teewaay yéen suñu mbokku taskatu xabaar yi lu ñu fi dajale tey mooy euh, mbir mi xamante ne ñetti fan yëpp senegal yëpp dégg nañ ko mooy lu xew fële ci hôpitalu Louga muy hôpital Amadou Sakhir Mbaye soxna ju tudd asta astu soxna euh, ba muy donc duggee sa hôpital bi pour euh, war fa am doom suñu boroom euh, dogal bakkanam des fa mu nekk loo xamante ne Sénégal yëpp ñaawlu ko ba ñu ko déggee nag la ñu fa envoyé ñetti inspection inspection bu njëkk bi mooy inspection administrative bi xamante ne inspecteur bi nekk fii ci département santé moom ak ay équipe ñoom ñoo ko war a def ñaareelu inspection bi inspection boobu direction bi yore lépp lu jëm ci jigéen ak xale mais aussi direction bi yore hôpitaux yi mais ak ñi xamante ne ñoo yore fële ci université de Dakar lépp lu jëm ci jigéen ñoom ñoo ko sëx def ko inspection bu mujj bi nag mission la rek mooy mission de soutien psychologique mooy dem seetu njaboot gi ma yónni fa woon fa directeur général de l'action sociale ak benn équipe bu mag ñu dem seeti effectivement njaboot gi jaale leen indi leen effectivement suñu soutien ba ñu defee ñetti inspection yooyu ñetti mission yooyu tey nag comme que indi leen rapport yi li war te jaadu mooy ñu ñëw devant l'opinion devant sénégalais yëpp pour wax leen inspection yooyu lan la ñu indi comme information pour que sénégalais yëpp mën ko xam bon nag ma jéem a leen wax lan moo nekk ci rapport inspection yi li ñu mën a jot mooy que ne madame Astou soxna yàlla na ko suñu boroom yërëm yóbbu ko na ba muy ñëw euh, hôpital ba ñu ko xoolee gisuñu en tout cas benn feebar boo xamante ne nekk na ci moom pour man ko faagaga ba mu ñëwee hôpital nag seetlu nañ tam bi ñu xoolee dossier am que ñetti at sa gannaaw defaloon nañ ko césarienne ba ñu ko defee césarienne yàlla def na euh, bébé bi mu ki woon mu ba mu ba mu àndaloon yàlla jël ko loolu césarienne boobu mu ngi am le 30 mars 2019 à 4 heures 40 du matin loolu nekk na ci dossier ñu wax ne madame Astou Sokhna bañ ko defalee césarienne boobu pare lépp lu waroon ci faj jëm ci cardiologie walla wàllu roñoo loolu yëpp def na ko loolu dafa bokk ci li xamante ne dafa war boo defee césarienne pour que ñu mën la suivre bon dëkk mën nañu wax ne le 28 mars 2022 ba madame Astou soxna di ñëw hôpital amul woon dara loo xamante ne nekk na jafe-jafe ci wàllu wér yaram ba mu ñëwee le 28 mars 2022 defal nañ ko visit ba pare ne pour que ñu def bilan boo xamante ne dañ koy préparer pour que bu waree ma a def césarienne ñu defal ko ko normalement le 31 mars 2022. moom aussi mu dellu si ba muy ñëwaat hôpital moo ñëwal boppam mais ba muy ñëw dafa commencé woon am ay métitu biir ñu entré ko ndëkk téye ko si bi dañ ko téyee le 31 ba ñu xëyee le premier avril si 6 heures 50 la ñu parents yi woo ñëw sage-femme woo sage-femme yi ne leen ñu ñëw xool astu Sokhna sage-femme bi mu ñëwee woo gynécologue bi ñu seetlu ne effectivement suñu borom jël na ko bon dëkk loolu moo waral li ñuy wax audit ñu vérifier est-ce que loolu jaadu na am déet mission yi fa demoon li ñu noté mooy que ne ñetti anam la ñuy vérifier wàllu audit bu njëkk bi ñu ngi koy woowee premier retard est-ce que mbir mi mi ngi nekk ci booru patient bi ñu seetlu ne ci wàllu patient bi gisuñu dara loo xamante ne waroon na ko mën a donc euh, faat ba bakkanam beneen bi mooy wàllu environnement bi ak wàllu trajet bi nan la ñëwee ba hôpital foofu tam gisuñu fa dara loo xamante ne war na mën a indi donc tolof tolof li mission bi conclure mooy que ne tolof tolof bi ñu ngi ko seetlu ci structure sanitaire bi. si niñ ko effectivement jëlee si biir hôpital bi loolu nag si wàllu diagnostic bi lañ ko set donc ni saytu bi des na mais aussi ñu set ko si wàllu prise en charge bi ak surveillance bi donc ni ko waroon surveiller surveiller ñu ko noonu bi ñu gisee situation boobu nag ñu war si mën a tirer ay conclusion conclusion majeure bi mooy que ne Fatou madame Astou Sokhna ñu ngi ko tuddee décès maternel évitable mooy que ne gannaaw ndogalu yàlla woo nee na loo xamante ne waroon nañ ko mën a donc saafara waroon nañ ko mën a mooy expression tubaab bi mooy dañ ko considérer comme un décès maternel évitable à travers une bonne évaluation de risque c'est-à-dire bu ñu ko toppatoo woon bu baax ci diagnostic bi évaluer risque bi ba pare surveiller ko bu baax gannaaw suñu borom astu soxna doon na mucc si situation boobu nag il fallait que ñu jël ay décision décision bu njëkk bi ñu jël mooy que ne ñu suspendre directeur u hôpital bu ngeen seetloo conseil des ministres bi ñu def démb jël na ndogal boobu pour dindi directeur hôpital bi indi fi beneen directeur bu tudd Abdallah Gueye en parenthèse d'ailleurs Abdoulaye Gueye boobu maa ngi ko fekk mu nekk directeur u hôpitalu Pikine bi mu fi ñëwee en 2017 moo nekk directeur hôpital Pikine ba 2021 mars 2021 mai 2021 plutôt moo indi ko fii mu ñëw renforcer nouvelle direction générale des établissements de santé bon donc euh, loolu c'est une information extrêmement importante parce que 2017 ba may ñëw fii laa ko fekk mu nekk directeur u Pikine te mu ngi fi jógee y' a pas longtemps en mai 2017 ma indi ko mu renforcer une nouvelle direction général ba xamante ne maa ko fi teg compte de sa compétence et de son sérieux loolu élément d' information la pour quand même mettre de côté yenn fake news yoo xamante ne des fois mën na jaxase xelu nit ñi euh, beneen décision bi ñu jël mooy si biir hôpital bi. képp koo xamante ne agent la te nga newoon ci dispositif bi xamante ne moo doon toppatoo astu soxna ñu jël la dugal na ci benn procédure boo xamante ne disciplinaire boo xamante ne hôpital bi moom moo koy euh, conduire ñooñu nag hôpital bi dana xool seen biir procédure boobu mën na dem jusqu'au licenciement parce que en vérité li ñu def dafa déboucher ci donc faat bakkan beneen élément bi am solo te ma bëgg ko noter mooy que ne li xew si wàllu astu soxna nekk na lu senegal lépp ñaawlu nekk na lu ñu regretté ñun ñëpp nekk na loo xamante ne wax dëgg yàlla donc du luy taaral suñu système waane ndëkk ñu noté ne système de santé bi ñu ngi def euh, liggéey bu mucc ayib ñu ngi def liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la surtout si temps yi passé renforcer nañ ko considérablement mais ay euh, jigéen ak ay góor ñoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk nekk ay agent de santé di liggéey liggéey boo xamante ne liggéey bu Sénégal yépp rafetlu daa mbir mi metti na mais occasion la pour mantam pour que ma ñaax leen ñu gën a jàpp seen liggéey parce que seen taxawaay Sénégal yàgg na ko rafetlu may noté tam pour terminer que ne Sénégal dafa def ay performance yu am solo ci wàllu mortalité maternelle et néonatale mooy xayma bi xamante ne dañ koy xayma réew yi di xool ban réew moo gën a am situation yi ñuy dund tey mooy jigéen bakkanam dem ci wàllu donc njur loolu ndëkk dafa nekk indicateur OMS indicateur bu am solo Sénégal ndëkk tey ci sous-région bi UEMOA moom moo fi juutu su indicateur boobu moom moo fa gën a nekk ci kanam parce que deux mille 2019 ñu ngi doon tourner ci indicateur boo xamante ne 386 naissances moo euh, décès pour 100 000 naissances vivantes la mais en 80 euh, en 2019 ñu ngi ci 276 décès 236 décès pour deux pour 100 euh, 000 naissances vivantes gis ngeen ne. évolution bu am solo am na foofu bon nag nañu continuer effectivement si effort yooyu mais ñu ñaax personnel de santé bi ak d'action sociale ñu taxaw pour que performance ak njàmbaar bi leen réew mi yëpp xamee ñu continuer ko may terminer si benn élément d'information bu am solo parce que en plus effort yu ñu def si ressources humaines yi dañuy continuer di def ay effort tam si li jëm si jumtukaay yi ak structure de santé si cadre boobu lay annoncé d'ailleurs que ne l'hôpital Aristide Le Dantec projet wu état bi sur instruction président Macky Sall mooy que ñu tabaxaat ko totalement loolu itam élément bu am solo la te si ay fan yu néew danañu effectivement donc am benn rencontre boo xamante ne certainement chef de l'État moom moo koy diriger pour que ñu xool yan modalité la ñuy jël pour que reconstruction hôpital Dantec ñu mën si gaaw nu mu gënee. donc loolu daal laa ne woon danaa leen ko indil di leen remercier encore une fois di wax ne nos services sont à votre totale disposition ici au niveau central comme au niveau des structures pour indil leen toutes les informations qui concernent le système de santé maa ngi leen di remercier